Ah, bon, bi je pense que c'est dû un peu euh, au nettoiement des classes parce que d'habitude la veille, la ñu waroon a nettoyer bon les femmes qui doivent s'en charger teeluñu woon ñëw quoi moo war mais sinon euh, tout est fin prêt quoi pour la reprise C'est la mairie qui devait envoyer les femmes pour nettoyer. mais defe naa ñëw nañu quand def nañ ko avec un peu de retard mais quand même euh, waaw waaw d'accord euh, avant première reprise bi le deux av ñëwoon nañu teeloon nañu ñëw pour def ko mais xam naa ne bon seen responsable moo avertir woon à temps les femmes pour ñu ñëwoon la veille pour nettoyer boo xoolee sax ñun depuis démb ñi ngi fii ak directeur les réglages pour que euh, tey xale bu ñu ñëwee ñu mën a dóor mais xam chaque fois premier jour bi day xaw a jafe bon tout mais démarrage moo am moo si am solo.